ñu egg si ci jàngat bi Ablaye Cissé lépp lépp lépp rafet na lépp lépp tolloo na li ko xale yi di wax <laughs> Ablaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> maa ngi lay fay. maa yaa ngi ci jàmm. Ah. <laughs> bul faale dañ lay dañ lay dañ lay kokkali dañ lay kokkali Ablaye garaawul yàlla baax Malik comme jël nañ ko bi hein oui oui oui place Concorde dafa xew démb. mi ngi mel ni mi ngi mel ni bañ ñu gagné de série de série de tiro série de tiro bi série de tiro bi lañ ñu gagné loolu day melni day melni ni gagné. ah bi ñu gagné rek mat non. <laughs> bi ñu gagné ñun waa Sénégal ba ñu Algérie dóoree final ñu ñëw gaañ réew mépp màpp topp gaynde yi ñu dem France gépp màpp jëm Concorde. dañoo rek. Mm. quelque chose euh, ah oui. est en train de voilà. il s'en est fallu de peur quelque chose est né waaw li ci ah. kanam lañu ñu doon célébrer noonu quoi. Mm. parce que. Massa Ablaye Cissé de de lendemain meilleur. mané ko Massa ak Marcel ak euh, Oumy Samba. Massa yéen ñet ak ah kan ci. événement bi Macron. li jiiñ ñi activiste. ni mu xewee ci dëkk yëpp. voilà mais quand même quand même vraiment merci hein. mm-hmm. merci à la France de nous avoir donné. Mm-hmm. vraiment cette belle finale hein. Parce mm. qu'à un certain moment, d'autres équipes auraient baissé pavillon. Mais les Français sont revenus très forts. Ils ont haussé leur niveau de jeu grâce à un Mbappé stratosphérique. Et ils ont failli gagner. Ils ont failli gagner. C'est pas Russie qui a gagné. en tout cas en attendant nous ñu ngi leen di waajal xew bu nous euh, Buenos Aires. mu bokk euh, ayow Ablaye ñu egsi ci bi juste Adja. Mhm. da nga tudd léegi landu landu mi d'accord landu. gox bu yéeme la. Hmm, xam naa dinaa dina dina non dañ koy bàyyi dinañ ko xool ak gars yi naa waxtaan ak gars yi ci wàll. mortal dénk nañ la dëkk waayiti la non boobu lay si oh landu dëkk bu yéeme la. incha allah voilà tey nga dugg ci suufu landu jaan eh, kii bi. dangar bi dangar bi day wàcc foofu jaan du fa màtt nit. Ah, benn la rek ci yu bari yu fa ne. Hmm.

Adja eh, gis nga rapport Cour des comptes bi bouquin de tayal ñepp war nañ ko lire et ça se lit très facilement en fait euh, ça se lit comme un roman xam nga amna rapport yo xam ne mën nga ni c'est sophistiqué wala day metté lire mhm. mais li vraiment littérature très accessible 180 pages la méttiwul. ne war lire ñi mënul lire aussi war na shérif ak c'est-à-dire wax ko en des termes très simples. ñepp hmm. déjà le français est très accessible. c'est ça amul complication. vraiment hmm. dans un français limpide euh, du graphique du ay bind la rek et ça kom lit comme un roman comme ni nit di toogee bu goudi mu jël roman di lire ba nelaw rapport bi meun nga ko jël fanaan ci boo ci bo ay bo boo gaawul ci lire bo ci defee ñaari goudi meun nga ko jéxal na nga na nga défaro nak balaa koy lire parce que. bo moytuwul sa fit rëcc wax deug fa yalla doyna war mhm. ci li nga xamanteni ni euh wa cour bi gëstu nañu ko.

mais Ablaye rapport yaa gën a génn yàgg nañu épingler ay nit mais bii nii lan moo ci maanaam lan moo ci xaw a particulier par rapport ak yeneen yi nga xam ne dañ ko doon dañ ko doon faral di gis. xam nga am na baat boo xam ne yàgg nañ koo dégg ñu associé ko ay détournement mooy crime économique xam nga crime économique lu am la mooy associé détournement ak un crime muy c'est criminel mais xam nga bi lan mo tax mu gëna a baat bi day bax ñu delluwaat ci fi nga xam ne foofu la fond force Covid cosaano Sénégal mu ngi am premier cas de Covid le 2 mars 2020 bax na ñuy fàttaliku bu baax jaaxle bi nga xam ne réew bi nekkee woon na parce que bu ñu fàttalikuwul du ko mën a dundaat. njàqare bu metti sax tiitaange. fàttaliku leen ni toll nañ fi jamono boo xam ne.

wallaahi tolloon nañ fi jamono jo xam ne ku ñu njort ne xaw nga am Covid ñu jëlee la si kër yóbbu la hôtel tëj la fa. prison la won hôtel yi c'était pas pour du luxe tolloon nañ fi jamono jo xam ñu naan ñi nga xam ne yóbbu nañ leen pour jël leen en charge amatu ñu luñ leen dundalé ñu naan lek bi neexul. ñu naan li ñu nekkee sax mo gëna metti Covid tolloon nañ fi jamono jo xam bi président défé ñu dawal mois de mars affaire yi di gën metti ba ñu am suñu premier cas de décès ñu né nak légui ñu ngi ci biir Covid. pap djouf bulletin bi ñu moy deux mois après ñu koy xaar diko déglu religieusement fan la Covid am ak famu am. ñu jóge ci fonds de riposte bu 69 milliards bi nga xamné ne nañu ni dana mat mais bi yëf yi sé ñu né non li mom matul sax ndékki pour taxawu Covid président de la République jëlee fonds de riposte bobou DEFCO programme de résilience économique et sociale presse Defco 1000 milliards tant que c'est important le rappel benn bi renforcer le système de santé deuxième bi deuxième branche résilience sociale Madame taxawu famille ci li nga xamné ne jël nañ ko ay décision def état d'urgence kenn liggéeyeetul kenn génnatul ñu né nañ ci jappalé mbokk yi 3 troisième ba 4e 4 quatrième point bi xam nga lan la won assurer l'approvisionnement correct des infrastructures de santé fexé ba fexé ba carburant du manquer waaye fexé ba lepp lu ñu soxla ci hôpitaux yi du manquer xaalis bobu loolu moo ci ëppoon solo loolu la doon jëriñ est-ce que fàttaliku ngeen jamono bi nga xam ne ñu ngi nekk ci riposte bi personnel de santé bi toog jëmmi jamono ba bëgg a grève ne duñ demati ci biir CTE yi. Mhm. centre de des parce que lu tax ñu ne amuñu masque. Mhm. ay ñu ne lu tax amuñ te ñu ay gants. Mhm. ñu ne lu tax ñu ne gants yi ñu commandé adapté wul boo ko dugalee sa loxo. loolu lan moo ko waral. tey la ñuy door a xam li xamoon nañu ko hmm. xamoon nañu li ko waral tey lay doga a leer hmm. Hmm. ci structure état boo xamante ni gëstu na ko ci mandutem. ci loo xam ni amul ben parparloo ci loo xam ni liggéeyam la li ci doy waar nag mooy moment ñooñu di def di jël xaalis bi di ko jaarale fenen. gis nga tey jarul sax ñuy tudd nit ñii ñu audité ñëpp ñi nga xam ne xaalis jaar loolu moo extraordinaire amul kenn koo xam ne nee nañ la gàcce ngaalaama yow ni nga yoree woon baax na sans exception laa wax amul kenn koo xam ne xaalis jaar na sa loxo te cour bi amul lu mu la joxoñeewul yi ci gën a garaaw bu weesoo surfacturation moom xam nga dafa mel ni mooy fii moom nit booy booy jënd dara sax foog nga foog nga am loo ci teg. Mhm. waaye bu jégg jégg ci ay milliards milliards day doy waar. cas yi yi nga xam ne ni dafa daw yaram sax ci ñi nga xam ne dañuy sàcc te nëbbatootuñu di fay benn mbir. fay ko ñaar ba ñetti yoon. nga fay dara nga ne lii Marcel laa ko war a fayee nga fay ko nga toog la lendemain nga bëgg rawalewaat nga ne fayaat naa Marcel fayaat naa ko loolu yëpp am na ci. fay yo xamné amul ben justificatif cour bi ba lajé laajee ñooñu xamné jaru parce que ñom sans exception là wax cour bi kumu mu mbir rek gis ni def nga lo xamanteni ni recommandation yi. gi ñan la.

donc ñoom ñoo gënoon a xam daal jafe-jafe yi sénégalais yi du dund rawatina ci mbas mi ci wàllu paj mi donc ñoom maanaam ñoom surtout daal. moo tax am na loo xam ne defe naa ni tayeef la loolu moo tax mu garaaw moo tax am na différenciation ci responsabilité. c'est ça a des degrés ci ki nga xam ne nii moo jiitu ci yëf yi. Mm-hmm. ministère de la santé. la santé nga xam ne yow li ma wax léegi li jiitu woon est-ce que yéen a ngi fàttaliku bés bi nga xam ne ñu ngi def. état d'urgence bi ñu koy jël parce que yalla def na fi lañu fekk ci plateau bi ministre sectoriel a doon def conférence de presse jour bobu muy ministre de l'intérieur et le ministre des transports Omar Youm keroog lañu ñu ni désormais masque c'est obligatoire dans les transports et les lieux publics sali ce doon dooro a dugg Et pourtant, pourtant ministre quelques jours avant a nañu riir bi rek ci non masque c'est pas obligatoire parce que affaire bi baña a rek la Covid mom xam nga lu nek wax nañ ko ci. parce que ko xam ak les mêmes ministres ñoo ñëw quelques jours après mais c'est pas ça le propos du jour. jour où bi nga xamné def nañu état d'urgence bi ba ministre yoy wax ni légui désormais dans les transports masque c'est obligatoire bëss bob yalla dafa def directeur général Dakar Dem dit lañu ñu doon dalal fi def pause pour suivre conférence de presse bi. muy Moussa Diop. Le ministre a dit que l'affaire est ouverte. Il a dit Ah, mais il ah, faudrait qu'on me dise fan la les masques. Hein? Ah, je peux donner des masques à mes employés, mes conducteurs, mes gérants. Passagers. Masques usagers. C'est ce qui débat. Usagers ont les masques. Est-ce qu'il y a des que les masques dans une boîte de boîte de 50 000 francs Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une boîte de masques 50 000 francs J'ai 3 000. Je vais vous dire da nga koy lijjanti do ko gis exactement lan mo waral lolu parce que liñu warono commander ci riposte bi te état yoron ko warono yombal lepp lo xam ne fàttali naa léegi quatre points programme de résilience économique et sociale le quatrième la quatrième branche assurer l'approvisionnement des structures de santé ak fexe ba carburant baña manquer

am nag ñoo xam ne li ñu leen reproché mooy. waxuñu ni dangaa sàcc waaye ni nga ko defee. du noonu mais ñooñu loolu mënul teggeeku seen kaw xam nga lu tax parce que ñooñu loolu mooy seen liggéey Chérif mii amul lu ñu koy baal ci wàllu journalisme. ci responsabilité wu journaliste. ci lu muy def ba pare naa xaw ma ko woon journaliste la mais xaw ma ko woon. ku ne dégg na fi baatu daaj daaj daaj daaj daaj mu mel ni ki daaj moom bu ñu fi jógee sax xëy na bu ñu neenalul post bi nit dina am kersa ñu ne ko daaj <laughs> ne man daaj parce que ñi fi nekk yàq nañu deru daaj mm-hmm. am na ci ñu bëri ñuy génn di di di di jéem a justifier sax di rax sànni seen der Malick vraiment nañ euh, ñu nekk ñoom les agneaux du sacrifice nañ ñu jéggal quoi vraiment Malick nañ ñu jéggal quoi parce que xam mm-hmm. bi ñëpp la sonal urgence yi fi nekkoon nekk na fi président de la république pourtant Tegui yoon lui il yi là. jump, jump, ba muy loi d'urgence pourtant top na trop mais là. parce que l'urgence, est la rek lu non top na assemblée nationale réduire nañu délai mais

pouvoir pouvoir bu ben nit yor té am sañ-sañu salfaañi li nga xamné moy règle recommandation 45 c'est très important ñu tax ñep bokku ñu atté nak ci ñep bokku ñu atté ci ni nga xamné non la leen cour bi ji même ministère de la santé ñep ñëpp bokkuñu sàtte bëggoon naa ñu taxaw ci ñaari cas kaawu docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention liñ koy ji am différentiel ci li moo xam ne yoroon na différentiel de dix millions Yo xam nenañ ko amul justificatif lutax parce que amna prestation yoo xam fay nañu ko cabinet bu tuddu defe dini ou quelque chose comme ça tur bi baat yi ma jàpp moo xaw bari parce que c'est siglé ñom la ko ron fay waye jëm ye ña nga xam ne jëmmal ñoñu lañu defal chèque ya fay len ko mu réussir à prouver que ah kii day mo représenter entreprise ba nga xamne mom mo contracté ak ñun comme prestataire comme courtier lay la mais lay buñu mëna dégg la ci ka nga xam mo wara jël xaalis bi ne la defal ma ko waaye nag ñun li intéressé est-ce que la jaay yegg na ci prestation am dette loolu c'est très important cour bi nak liggéeyam lay def mom top yoon 45 li tax mo bëgg ci taxaw parce que malik mu ngi koy wax légui ñu bari ñu ngi lay dama for ci ben publication association des femmes médecins ñuy layal kilifa gu mag go xam ni ragné nañu ko ci réew mi muy professeur Moussa Seydi parce que tudd nañu ko aussi ci rapport bi association des femmes médecins la ñëk gis bala may dem jang man lu nekk ci yëf yi l'association association des femmes médecins di ko nan ko 300 trois rek Vous pour rembourser 300 000 pour rembourser effectivement si vous avez des les prestataires prestataires nous mission yu facture bi de ci million trois cent mille ñu million par exemple

dañu ko liggéeyloo 24 heures sur 24 en raison de confinement bi nga xamni mo fi nekkoon ñi nga xamni war nga liggéey ak ñoom sax ci mission bi ñuko dénk peut-être que amna moment yo xamni do doo leen mën gis ñu bëgg mu bar ñu liggéeyloo loko forcé loko muy utiliser yit moyen de transport boppam biñu xolé ñu déggo ak mom ne ko jar na ñu fay la 300 000 francs en plus. bay mu ngi non mm-hmm. xam nga Koko. bon xam nga fi boy wax yoo xam 300 000 sax da bon nañu jàll. mais principe bi motax ñuy ah, wax. mais li cours bi recommandé ci ci 45 bobu ci moom professeur Moussa et c'est ça le plus important ñu taxaw ci parce que li ñu koy toppee moom du yor xalisu Covid bi mais luy jotee ak service des maladies infectieuses et tropicales bi nga xamné tabax nañu ko té inauguré ko en plein Covid cours bi ne ko bayil cabinet privé bi nga recommandation 45 cabinet privé bi nga xamné gérer fonds publics ak walu privé bi fondation américaine le bu financer service on peut le lire hein, daf la cour recommandation numéro 40 ah, la cour demande au professeur Moussa Seydi chef du service des maladies infectieuses tropicales. de mettre un terme à la gestion des ressources publiques du du même service par un cabinet privé cabinet privé Bobo, président de la république décision mom lañuy wax ci président de la république lu muy salfaañee moom tamit. mom mhm. ci bopam mo autorisé non seulement cabinet privé Bobo, mu gérer tabaxu service des maladies infectieuses et tropicales parce que day ay partenaires étrangers yo xamné de bëgg dimbalé Sénégal pour tabac service bon Nous ne voyons ñoom sen xaalis ñu seen seni process ni muy demee moy cabinet privé gère ñu jël décision ci autorisation président de la république li muy indi moy est-ce que président warna def loolu mais su ko téggé teggeeku na ki nga xamné président moko sante yooyu mooy problème yi nga xam ne moo ci mi c'est-à-dire c'est-à-dire que président dans son le confort de son bureau mën naa teggi lu ne a une ci urgence teg ko parfois sax ci garaawul mais graoul bobo, mon ñuy et encore que cas heureusement que amuñu lu ñu ko jiiñ lu mais lolo am nañu ko président dans défal ci ñi nga xam ne nii ñoo milliards jaarale ko fu leen neex bolen bolen, leen boo bolen bolen, boo leen c'est-à-dire ñu respecter réglementation musiba am je passe sur les uh-huh. cas Nath, excuse-moi sur les cas des parce que un ngi de sànq uh-huh. ministère de la santé effectivement nous sommes yi fa nous sommes les premier responsable d'âge ba moom wax dëgg nous mm. war am Hmm. mi voilà c'est ça recommandation numéro 45 bi nga doon laajte mi ngi nii mais Ablaye Cissé am na tamit comité de pilotage bi nga xam ne euh, général Ndiaye moo ko doon jiite ngir ñu top ba ñu topp yëf yi ba ñu ko yellool yëpp lépp ci yoon finalement comité boobu kon lan mooy njëriñam. xam nga lan la may fàttali. Mhm. daf may fatali, ça n'a aucun rapport ak li ñuy wax nii. Hmm. daf may élection présidentielle au Kenya li tax ma dem fa 2018 eu élection présidentielle le Kenyatta gagné ci très observateur yi àdduna élection bi observateur mhm. non tout s'est très bien passé L'opposition opposition de un mois après cour constitutionnelle ba élections élection bi li, ak reprendre c'était extraordinaire élection boo xam dem nañu ba cour constitutionnelle ba d'accord, responsabilité C'est le président sortant a gagné Voilà. président voilà président sortant a gagné Observateur. Il faut que vous point de responsabilité observateur. Avec ak gens qui souvent le pouvoir bi avec nekk moo pour nous observer amna yo yoo dañ ko koy nopi lak nangam nanga ay observateurs internationaux NDI ak yeneen ak yeneen amna ay sénégalais yo xam fi lañu bok ñu observer demoon observé ji ñoom ñëpp ils se sont couchés ci observation yo xam waron nañ ko mëna def defuñu ko cour constitutionnel bi génn ne leen ah li ngeen setlu ba ne valable na valable ndax li ak li ak li mu ngi ni te jaarul yoon loolu la may fàttali. mais pour ce cas là Momar ndaw mi yoron kàddu bi nee que le général Ndiaye ñom relevé won nañu yenn irrégularités yi. waaw non naata ñoom tamit dangay ngay fàttaliku nii wax dëgg fa yàlla euh, la ñu njëkk a tàmbalee. Mhm. mooy xëccoo ay prime te loolu lu fi nekk la weddi weddi loolu moo fi nekk donc fii c'est jox nit. mu war a xam ni ci axulaay taalab ak taxawu askan wi rek. moo ko tax a jóg moo ko tax a jóg. Mhm. loolu manqué. yërëm nit ñi gis nga xaalisu Covid bii ñi ko toje. ñii détourné xaalisu Covid bii amuñu yërmande ci nit ñi. absolument mais mais loolu mooy criminel parce que mmh. xam nga lu tax. ndax poursuite judiciaire la wala boog li ñu nañ ko guqi nan la ñu war a def ba loolu tey jii ñu saafara ko. parce que nag bu fekkee ni sanctionné la yar bi ñi mi dal dina bari loolu. Malick xam nga dund nañ fi Covid. Mmh. amul kenn fii koo xam ne amoo soit nga dund ko yow sa bopp. parce que am na ñu fi jaar ci Covid yu metti wala sa jegeñaale. wala sa jegeñaale. maar day taal ñi nga xam ne nag ñàkk nañ ci mbokk mu dee ci anam yu metti est-ce que ñu ngay bëgg di fàttaliku nii Covid tolloon nañ fi jamono boo xam ne nit ñaa ngi daw di wutali seen bopp oxygène. Mm-hmm. yéen a ngi fàttaliku bi ñu fi jógee ba la nga xaw ñu ngi ko doon gis Inde nit ñi yor seeni i butéelu pour dem tappal ko seen i mbokk mm-hmm. mais tolloon nañ fi jamono joo xam ne ñu ngi wër oxygène tolloon nañ fi jamono joo xam ne ñi yor centre de traitement des épidémies lu ñu nekk fonctionnaire nekk fonctionnaire dañu daan yëglu ne ah amuñu oxygène nga gis ministre de la santé à l'époque ku wax amuñu oxygène mu ne yaa ngi saboté te pourtant ñooñu li nga xam ne moom la ñuy def mooy suñu amee malade jaar naa ci moo tax ma koy nettali mais ku ne jaar na ci Covid ku ne xam na li nekk ci boo tollee ci benn situation wu détresse respiratoire

ñooy porter plainte ñi nga xam ne ñoo détourné xaalisu Covid bii parce que xaalis bi bu demoon fi mu waroon dem du ñu manqué oxygène du ñu manqué masque tolloon na fi jamono joo xam ne mais ñi yor seete yi bëggatuñu woon dugg ci biir centre de traitement des épidémies ci biir box yi parce que amuñu masque te boobu médecin yeeg personnel santé ñëpp a saalit parce que ku li nga doon yaakaar ci Covid mooy boo jegee ko Covid Covid nga. loolu wayu aduna bi la woon parce que image yi lañ doon gis France eh, États-Unis ak fenen ak fenen ñi doon dugg ci fa nga xam fa lañu denc personnel yi Covid mais gis nga ni ñu doon solo. mais mais Ablaye ya le cas du ministre bi nga xamanteni à l'époque mom mo waron defal masque parce que dénkoon nañ ko mbiram industrie mooy Moustapha Diop dégg nga ñombe li nga xamanteni tamit mom ak chauffeur bi def nañ ko doon dem ci banque déjà def ko ci turam mu nek administrateur ba chaque jour nga ronqi 50 millions jàpp 100 millions de francs CFA. Chérif c'est que def ci tayef mo fi né ma tay ken mënu ci dara parce que parce que président de la République dina ko gérer dina ci tek conc li président de la République waru ci am sax yoon franchement bu féké ni amna suñu kersa touti bu féké amna suñu kersa touti mom président de la République amna mbokk yu gañu ci Covid bi am na mbokk yoo xam ne nii teelu la yëg ni ñu ngi woon ci situation de détresse bu metti mhm. boo xam ne ci lañu ñu desee warula am yoon sax ci rapport bi ñu naan ñu ngi xaar mu autorisé bañ a autoriser nañu def rek li nga xam ne moom la cour bi wax mhm. topp ñi nga xam ne war nañ leen a topp ñi war a guqi ñu guqi ñi nga xam ne nii nag xaw nañoo teggi yoon waaye du dërëm bu ñu leen mën a jiiñ mhm.